ñu nuy mbokki jullit yëpp. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp. di nuyu mbokki taalibe yëpp. di ndokkeel ci. di ndokkeel ci bis bi. tey jiital ci nuyu bi ak siyaara bi. ñu nuyu tey jiital ci nuyu bi ak siyaara bi. ñu ko baaxoo daal di def. di jiital ak yoon bi. Cheikh Mouhamadou nga xam li ñu def lépp ci seen teewaay ak seen kóotaay la. nga xam ne li ñu def lépp ci seen digal ak seen kóotaay la ñu def. waaye nañ ci yàlla toog toog bañ def ni ñu ko bëggee. yàlla nañu yàlla toog toog def ko ni ñu ko bëggee. waaw di fàttali rek bis bi koor li ñu jógee ni ñu koor. di fàttali li ñu jógee jàmm yàlla ñu jógee koor. kullu kullu amal ibni aadama lahu illa siyaam fa innahu li wa ana ajzi bi waaw loolu la mooy ñu ci wax foofu rek mooy koor day mel ne njëlbeen njëlbeen njëlbeen digg bi ak njëggal la. digg bi ak njëggal la. mu jigi gorale ci sawar. mu jigi gorale ci sawar. del waxaat ne. del waxaat ne. bépp jëfi doomu aadama bu ne. bépp jëfi doomu aadama bu ne. moom moom moom lay. moom lay ba mu des koor. di wane koor moom moo ko. moo ko fay bopp. moo ko fay bopp. kon nag yàlla nañ ci jëlee loolu ba ci. nag yàlla nañ ci jëlee loolu ci yàlla. waaw xanaa di dokkeelaat bu baax ak suñu kilifa bi. di dokkee naa bu baax ak suñu kilifa bi réalisation bu am solo bi nga xam def na ko mooy ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko di mu réalisé mooy jaami xam muy complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi ñu ngi ko ci ndokkee bu baax ñu ngi ko ci ndokkee bu baax xam ne jëf ju rëy rek ñu xam ne loolu jëf ju rëy rek waaw daf mel xar baax feeñ na ci tey xar baax feeñ na ndax diir bi ñu ko tàmbalee léegi ndax diir bi ñu ko tàmbalee ak léegi eh, ni mu toll ni mu toll mu agsi mu agsi ba mu agsi fii mu agsi. dañ tàmbali ko ci weer bi ñu génn. dañ tàmbali ko ci weer bi ñu génn. dañ tàmbali ko ci weer bi ñu génn. loolu day wane nag day wane ci loolu daal daa bokk ci xabaar. loolu rek day wane ne loolu xar baax la. day wane daa bokk ci xar baax sëriñ bi. loolu day wane ne daa bokk ci xar baax sëriñ bi waaw. waaw te jàpp nañu ne nit moom lu mën doon xam-xam moo war a jëf. ndax day jàpp ne nit lu mu mën a doon rek xam-xam moo war a jëf. nit yàlla da ko tànn mu wutu ko ci kaw suuf. ndax doomu aadama yàlla da koo tànn mu wutu ko ci kaw suuf. id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa. ndax suñu borom wax na sama rabbuka lil malaaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa. waaw la ba loolu amee nag. ba loolu amee nag. bu yàlla namee ne da ko moom la moom la bëgg mu wutu ko ci kaw suuf. bu yàlla namee ne doomu aadama bëgg mu wutu ko ci kaw suuf. atajalu fiiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال inni a'lamu ma la ta'lamun waaw kon lay mel ni ba yàlla namee loolu ba nit jël ne ne ko wóotuma ci kaw suuf ba jël doomu aadama ñu doomu ñu gën a aadama mu am ci kaw suuf. lam njëkk a tàmbalee moom mooy. lam njëkk a tàmbalee moom mooy. wa allama aadama al asmaa kullaha. wa allama aadama al asmaa kullaha. summa aradahum ala al malaaika. summa aradahum ala al malaaikati. qaala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i. qaala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin. qaalu subhaanaka. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم kon day mel bu ko yàlla tànnee rek ku wutuma ci kaw suuf kon ba yàlla tànnee amal ne ko wutuma ci kaw suuf lam njëkk a tàmbali moom mooy daal di xamal li nekk suuf ak ni ñu ko war a jëriñ ñëpp lam njëkk a tàmbali moom mooy xamal ko li nekk kaw suuf lépp ak ni ñu ko war a jëriñ kon day mel ne xam-xam kon day mel ne xam-xam doomu aadama. ba mënta ñàkk a gën a jiitu nag ba ci gën a yooyu mooy nag xam-xamu diine. xam-xam ba ah, yenn yi ci ci. xam-xam lu ci ne lu ne doomu aadama soxlaa lu doomu aadama di war ci kaw suuf rek. ko ak jëm ko xam day lu mënta ñàkk. gëstu ko jëm koo xam day mel ne lu mënta ñàkk. waaw ah, te ni ñu defe ñëpp jànguwaay bu mel na ne waaye soxla xam rek dootu ko jéggati mel na jànguwaay bi sëriñ bi taxaw lépp lu waaye soxla xam lépp lu waaye soxla xam mën nga ko koy xam jël ko ñu koy jëggaat di ko wut naa ñu feneen waaw kon nag mel na ne loolu moom lu am am solo kon mel na ne loolu lu am solo waaw te ginnaaw euh, kon fii day mel ne am na looy fàttaliku waykat boo xam ne kaadal muallimu an yakuna rasulan kon mooy am na benn waykat bu wax ne kaana muallimu an yakuna rasuula waaye fii nii boo xoolee su su suñu maam Adama fi mu toogee malaayika yi waaye bu ñu xoolee maam Adama si fi mu toogee malaayika yi waaw di leen di leen leeral loolu di leen leeral di ko yàlla xamal ci dafa xam ne kaadal muallimu an yakuna rasuula mën nañu wax foofu ne kaana kaadal muallimu an yakuna rasuula kaadal muallimu an yakuna rasuula la waykat boo xam la waykat boo xam waaye fii mën nees naa wax ne kaanal kaanal muallimu rasuulan waaye diggante aadama ak malaayika yi mën nañoo wax kaana Muhammad wa rasul. ñu ne kon loolu la am solo. kon loolu lu solo la. ba ci ngeen lu xam-xam. day firi ngëneel lu xam-xam. aay bi njëkk a wàcc ci alquran. ñu xoolee aay bi njëkk a wàcc ci alquran. mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq. mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq. xalaqal insaana min alaq. xalaqal insaana min alaq. iqra wa rabbuka al akram. iqra wa rabbuka al akram. alladi allama bil qalam. alladi allama bil qalam. allama al insaana ma allama al insaana ma lam ya'lam. allama al insaana ma lam ya'lam. Ah, kon dañ ne loolu boo ko jàngee lu ci dégg rek. loolu bu ñu ko jàngee li ñuy dégg mooy. jàngal te da ngay njëkk na nga tàmbalee ci. sa borom mi nga xam ne moo bind. wax si dina wax yàlla njëkkee sa borom. sa sa borom mi nga xam ne moo bind. sa borom mi nga xam ne moo bind. kon li bind lépp lu ci biir loolu. te li bind lépp lu ci biir loolu. kon la ko xalaxal insaana min alaq. xalaxal insaana min alaq. kon loolu day mel ne ci nit lay dellu. loolu day mel ne nit lay dellu. iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam day mel ne lépp loo xam ne rek mi ngi ci téere wala lu ñu bind rek mi ngi ci day lam allamal insaan maa lam ya'lam waaw kon day mel ne lépp loo xam ne nit mënu ko ñàkk xam te te te yàlla xamal ko fa loolu day dugal ci loolu lépp lu nit bëgg a xam ci àdduna ñu ko waaw seen biir waxaat ne al ilmu wal amalu jawharaani Sëriñ Tuubaa waxee soo demee ci xam-xam wax ne al ilmu al amalu jawharaani jawharaani li xayri daarayni yajlibaani li xayri daarayni yajlibaani nee na xam-xam ak jëfe mu ne xam-xam ak jëfe ñaari wurus lañ yoo xam ne day day day day day bu jël nit ñaari wurus lañ yoo xam ne day xëcc nit bi boo matal ko ñaari yiw yiw ñaari yiw ñaari kër mooy àdduna waaw ba tey ma waxal ne wa min makaa'idi l-la'iini l-mujrimi sarfu l-muriidiina ani t-ta'allumi waaw kon loolu lay mel ne sëñ bi wax na ni ko eh, pexe seytaan sëñ bi wax na ni pexe seytaan ci murid ci ne war na ci góorgóorlu ba fexe fexem seytaane moom nga war naa góorgóorlu fexem seytaane boobu nga bay nga bay sawaar ba ba dindi ci loo mën loo mën nga bay sawaar ba dindi ci loo mën mën koy mucc wa man nahaakum ba tey mu delloo xam wa nahaakum ani taallumi wa xalifatul laahi lil mukrimin wa xalifatul laahi lil mukrimin nekk ku leen di ay jàng ku nekk képp ku leen di ay jàng ku nekk ci wuutu iblis ci kaw suuf. kooku xam leen ne ñu wuutu iblis ci kaw suuf ci ko. nag yëpp jar na tax ñu gën ci góorgóorlu. kon nag lépp gën a góorgóorlu njàng ko fonkaat bu baax. gën a bu ci kilifa gi defee coono yi ci daj yëpp. gannaaw bu ci sëriñ wax nga mën taxaa defee coono yi ci daj yëpp. buñ ko ci jàppale te fexe ba buñ xam wala.

xam ne yow maanaam li war a jiitu ci njàngin mooy njàng mooy njàngum biir bu loolu. li war a jiitu ci njàngam lépp mooy njàngum biir. waaye jànguwaay bi taxawaay bi mu taxawee. waaye jànguwaay bi taxawaay bi taxawaay bi mu taxawee. Ah, leneen yeneen xeetu métier yeeg yeneen li nit di itteewoo lépp lépp mel na làmboo na ko. yeneen xeetu métier yeeg yeneen xam-xam yi nit di soxla lépp jànguwaay bi làmboo. te jàng léegi mel na ne du may xool démb rek ma gis ñu wane eh, xeet maanaam. ñuy tuddee ay milliardaires yoo xam ne technologie ci ci moo leen moo leen sos. bu ñu xoolee ñu ngi doon xool ñi nga xam ne dañoo ne mën naa ne gën a riche ci bi lañ bokk. bu ñu xoolee ñeent ñi nga xam ne ñoo gën a riche bi ñoo ëpp alal ci àdduna bi. jàng lañ def man dañoo jàng seen njàngu bën. ñoo jàng suñu njàng. njàng ubbeeku. njàng ubbeeku. ba liggéey soosu jàng. ba liggéey soosu ca ba liggéey soosu ca bañ am ci liñ ci am noonu bañ am ci liñ ci mën bokk ñi gën a womal ci àdduna bokk na ci ñi gën a womal ci àdduna kon loolu mel na xam xam-xam moo may waaw man kon ginnaaw mel na nit ñi loolu mel na bokk nañ ci liñ ci loo xam ne seen itti la kon loolu bokk ginnaaw xam ne nit ñi loolu bokk na ci seen itti waaw kon mel na ne misaal moomu rek na ni ci am kon ku ci nekk dara dara weesu kon ku ci nekk di jàng fonk xam-xam dañ xam ne dara du weesu jëm. waaw te lu ca lu ca ne ubbi ko lu ne xañ na ci. ndax xam-xam bu ubbi ko ci lu ne xañ na ci du ma ko ci xam. waaw kay waaw ah, xanaa di fàttaliwaat rek ndénkaane sëriñ bi sëriñ bi mën di fàttaliwaat rek daan dénkaane. lu mu daan dénkaane. ci bu daan santaane yenn yenn yenn liggéey. ci bu daan santaane mu yenn liggéey. waaw ci nangoo liggéey. sonn ngeen ci nangu liggéey. ak sukkandiku ci seen bopp. ak sukkandiku ci seen bopp. waaw wax fexe ba li leen di sant. leen sant ngeen mënal ko seen bopp. li waaw mooy yu mel ne liggéeyu jumaa yi xëy na fexe ba defal ko seen bopp. mooy ko seen bopp. waaw ndax bu ko defut nee ko eh, keneen dañ leen ko defal. ndax bu ngeen ko deful mooy ñëw bëgg leen koo defal te képp ku la mënal bu nekk dana la sañal te kon bu boobaa mën na laa dugal ci loo xam ne bokkul ci loo xam ne a def kon nag eh, loolu liñ ci mën a dégg rek mooy gën a taxawaat farluwaat ci liggéey gën a farluwaat ci liggéey te gën a jàppalante ci diggante jullit yi ak taalibe yi. te gën a daal sa morom la cee jàppalante. Ah, taxawal a jublaat ci liggéey te gën a gën ko jox gën ko jox bu ci liggéey ak gën ko jox gëdd. Ah, ba loolu mu ñu bañal loolu mu ñu bañal ci loolu bañu ci daal. waaw ah, te nit moom. ndax doomu aadama moom. yi ko mën a fekk yii la li ko ci mën a fekk nii la. man yi ko mën a fëkk. li ko mën a fëkk. mooy ki la jàngal. mooy ki la jàngal. man boo deful ndànk mën naa mën na laa mën naa bu la bëggee wël bu la bëggee détourné man bu la bëggee wëlbati mën na laa wëlbati. bu la bëggee détourné wëlbati la mën na laa wëlbati. ci la dimbali bu la bu namee ci yow leneen lu wut loolu bu la yàlla dimbali man man laa taxaw. ci lay ci lay dimbalee bu la yàlla dimbalee bu namee ci ak safaan loolu mën a xam kon nag buñ jàngalee jàngalee ndaw ñi. yar leen. yar leen. taxawu ba bañ mën a am métier wala mën a am lu njàpp. taxawu leen bañ loolu mooy yaakaar daan nekk seen nga daan nekk garanti ci ñoom. dana nekk garanti ci ñoom. waaw ba leneen du leen a këpp. ba leneen du leen mën a fëkk. bu yooyu yëpp amul nag. waaye bu yooyu yëpp amul nag. waaw waykat boo xam ne. la ومنة الدنيا على ah, mooy bokk na ci jafe-jafe li ma ne bokk na ci nga xam ne àdduna ko indi mooy bokk na ci nëpp nëpp ak jafe-jafe ak ah, nga dem ba xam ne noonu ak góor dem ba nga te koo jaar nag xarit mu nekk sa nekk xarit. wëlbati nga bëgg ko def sa xarit ngir. waaw ah, ngir ngir na mënta ñàkk. ngir la nga mënta ñàkk ci moom. waaw ah, kon nag loolu yàlla bu ci àgg. kon yoon yàlla na nañ ci yàlla dimbali ba duñ ba duñ ko def. waaw ah, yàlla na yàlla gën a defal lim ba def. yàlla na yàlla gën a defal lim ba def. gën a defal taw taw fexe. gën ñoo defal taw fexe. gën ñoo xel ci li bëgg. gën ñoo xel ci li mu bëgg. gën ñoo sori lim lim gërëmut. gën ñoo sori lim gërëmut. gën ñoo sori li nga xam ne gërëmu ko. sax ñu ci génn te saxal ci diine. waaw yéwén suñu mbir àddina ak suñu mbir alaaxira. yàlla yéwén suñu mbiri àddina ak suñu mbiri alaaxira.